Aïcha mi ngi noonu mbokk internet Dakar Buzz ki nag ñu taxawal moom mën naa ne ci ñu sanc Marodi la bok macha allah ah, loxom set na moo tax mën naa bokk ak ñëpp muy tata Leila ah, nekk tataawu xale xale yi dañ ko faawoon man dama ko faawoon ndax man damaa bëgg ko pànk man tata Leila maa ngi leen yaa nga ma suivre de demandé autrement rek ça va ma chérie moo def yaa ngi si jàmm ça va alhamdulilah yaa sañ sa ah, dañuy jéem rek xaadim jongo génn fi rek na ma saajal jëlama bi ma xool wundeel wundeel ma xool xaadim la kon xaarim moo bandi moo baax na mais xaw na doy waa trop ayca mi ngi noonu ñu gis la tey euh, ci du ma ne bésu Marodi bi ma naan ci seen bés bi ban yëg-yëg nga ci am kontaan rek ma chérie dëgg yàlla liggéey daal mooy dëgg liggéey rek mooy dëgg nii boo ko xoolee xam ne liggéey la ndax damay ne nii da ngay def petit ba meer mu yokk nga xam ne sant yàlla la ñu ngi liggéey nag ñu nekk ay xale euh, ba pare nekk ci yoon bi léegi ñu gis na bari nañ lool ay xale macha allah di ñaan yàlla mu yokk euh, yan conseil nga leen jox ci seen diggante ak acteurs ñu def ci nànk rek te xam ne bës bës bu bari bi tamit fajul dara nañ ko def métier bu noble mun cee tedd suñu ci deful dara dañ ci mën a dem ci bëgg a liggéey bëgg a ñëw taxaw pour dara ñu mës a yem fay fula fula rek moo lay may foofu nga egg si fi nga bëgg egg. waaw ma ñooñu mënuma sori ci ñoom parce que gëmuñu ko man dama ko def métier boo xam ne dama ko naw bëgg ko lool moo tax fu la rek laa ciy demee naka nga gisee série yi nga xamante ne ñu ngi koy euh, doxal muy série yu bari ah am na nag yu mujj a juddu mais gisoon nañ ci Pod et Marichou gis la ci gis fi Nafi gis la ci ak yeneen ak yeneen ñu koy lim fii la ñuy fanaan yëpp sénégalais yi bëgg ko rafetlu ko naka nga gisee bind bi. Euh, dañ koy liggéey mu set seggi ko bañ a naxe ndax lu naxee bokk rek du dem. te li ñuy def dafa ne ci biir kër yi ñu koy wax ndax ñun suñu jikko sax man mi wax sama jikko yàggut mais dañuy wax leen loo xam defaru askan gi ko seetaan di ci gis njëriñ di la béggee la laa gi dem waaw. mais Tata Leila mi ngi jot ay ay ay euh, retour yu baax léeg-léeg tam xam naa gars yi xaw a dal sa kaw ndax léeg-léeg nga yëngal kër yi. waaw da ciy bàyyi fa ngay gësam tuuti ba dul gësam dara du baax mais toujours mu nooy nii non naxe la il faut ngay gësam di génne mbuuti tuuti waaw. mais gars yi lan lañ lay wax ci rôle de euh, rôle sant yàlla ndax buñ ci indi ma dem ceeg sama ful ak sama fayda buñ ma indil defante ma defante ba ngeen defante rek laay def nga ni ma drama nag kii musta wax musta def fekk lépp laay defee macha allah nag te lépp ci gëm-gëm la mais defante bi mosu ci jot benn appel boo xam ne euh, xaw na la toujours waaye nag euh, duñ ci wax lu bari dañuy daal fula la di rek moo lay wan ni naxewuñu daal fula laay demee rek mais kuy nit nga seetaan nga xam ne kii li mu wax dafa am mais bëgguma si si si nga yaakaar ni foofu na def la yëf nekk nekk fa de da ngay wax dëgg gi askan wi di la déglu ñu naan ah, lay laal mu wax kat ëpp na waaye dëgg la de man damay daal di laal sama bopp man ah, ay waaye tey laal naa sama bopp damay daal di jekkaat defaraat sama bopp àddina noonu la mhm, man jaguma. mais kenn mosu la ci wax dara lu la naqari ca appel. non non non franchement amul bëgg rek ñuy def rek dañuy bëgg rek tey laa daal bëgg nañ la bëgg nañ la. tey Layla mën nañu wax ne ñu bari gis nañ ko ci Marodi waaye Layla ku yàgg ci métier bi la euh, yan conseil lay jox xale yi nga xamante ni ñoo ci doog a euh, dugg rawatina yi ngeen di liggéeyal ndax léeg-léeg ñu ŋàññi leen ci solin bi wala ci waxin bi waaw mooy defaraat toogaay bi rek parce que image dafa doy waar loo ci def suba defoo ci fulla rek bu subaa di nga mere sa bopp ndax kiy bind ak ki jaay luy jaay seen produit rek la ñu bëgg waaye yow mi ci nekk di def ñu lay wax ne yow la def ci nànk te defaraat soli gi defaraat toogaay yi ci am solo trop ak parole yi voilà Mm-hmm. Saaley laa marié loola célibataire. bisa nga may laaj loolu yow. damay laaj rek. ne doo ma andi nga da nga tooy. waaye sama yëf la. <laughs> mais am na ku fi ne wala kenn ne wu. sama yëf la daal. mais leeralal loolu de. sama yëf la rek. sama yëf la ok na loolu mooy kenn ne wu fi. xaw ma daal sama yëf la rek. kenn ne ba léegi nga ne maa ngi toppatoo sama nijaay. ah waaw maa ngi toppatoo. da <laughs> nga am ku bees. <laughs> nga am. waa ji lu mu liggéey indil la ko bàyyi waa solo. am na ñu naan ko sos rek laa bañ te yow da ngay sos. <laughs> mi ngi noonu euh, tey ñu bari ñu ngi leen di ŋàññi yéen artistes yi euh, ci problème mu sëy yi boo toogee gis ñu leen di ŋàññi loolu nga yàgg ci métier bi ban yëg-yëg ngay am. non ŋàññi gi ku ne sa xalaat rek ndax du ñu dong ñooy divorce du ñu dong ñooy sëy mais booy fexee bay tasit te doon loo xam ko dégg na ne ndogal yàlla wala dafa war a jeex jeex na mais tas ci anam goo xam ku la dégg dara ci gémmiñ ci euh, loxoom ci gémmiñ loolu laay ŋàññi sëy nag bakken la fu mu war a jeex dafay jeex du dëgg man daal loolu laa d'accord nañu sëy rek fu mu ko yàlla yemele ñu xam fi la ko yàlla yemele mu wutaat leneen rek. ma ngi lay jaajëfal. kontaan naa bu baax. merci beaucoup merci beaucoup. <laughs> kentenutu Dakar Buzz ñu taxaw ak nag euh, suñu nijaay mais nijaay jantal laa ko tuddee <laughs> euh, muy tonton Matar Diouf Diouf a ñoxob Diop waaw Diop euh, tonton Matar Diop nag la ñu taxawal di suñu nijaay di nijaay jantal Diop a juba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax. maa ngi lay bu baax a baax. noo def maa ngi si sant nañu a baax alhamdulilah. xale yi nee nañ tonton Matar Diop dafa jantal. ah waaw mais ci appréciation nit ñi la mais man dafa seen tonton Matar dafa xaw màgget. <laughs> waaw kon ca màgget ba waaw waaw ci màgget ba nag waaw ci màgget ba la. noonu euh, ñu gis la tey ci bésu Marodi bi mm. euh, gis la nag nga bokk ak ñoom liggéey yu bari euh, naka nga gisee d'abord bés bi nga xamante ne moom lañu ñu organisé tey. waaw mais ça c'est un grand jour li nga xam ne dafa faral di war a faral di am ci ci ci maison de production yi. parce que artistes yi loolu dañu war a dajeeg seen seen i fans tey jii mu nekk des grands jours yoo xam ne ñu mën a saafoonteeg ñu waxanteeg presse bi daal di ñi nga xam ni li wolof di wax naan bëgg moom yéeg a koy faj donc euh, waxtaan ak ñoom foog ñoom échanger ak ñoom parce que c'est c'est la chose la plus naturelle parce que nit ki bu amee ku ko xool ku ko seetaan te fayul euh, li mu am mooy dajeeg ñi nga xam ne ñoom ñoo tax mu exister donc c'est la chose la plus naturelle et Euh, Marodi euh, ñu mën nañu wax na ñi fay liggéey ñu bari ay xale lañu euh, ñuy liggéeyandoo tamit ay xale yu bari yan conseil nga leen di jox ci seen diggante ak artiste waaw dal ci dañ ko séntu ñu dox waaye ci nit la gëne lépp lu waaye def bu ci dalee rek am ci ndam am yar am tegin xam ni ci liggéey nga nekk def ko ak fulla ak fayda parce que loolu rek mooy nit te foo dem loolu moo valable ci liggéey bi ci euh, euh, musique bi ci théâtre bi ci leneen dal yar teggin ak xam li la yëkkati def ko dellu sa kër. naka nga gisee série yi nga xamante ni ñu ngi koy def sénégalais ñu bari euh, bëgg ko xale yëpp di ko seetaan mais léeg-léeg ñu xaw a ñi acteurs yi ci solin bi wala ci waxin bi ban yëg-yëg ngay am ci loolu. dans la vie il faut très bien éduquer boo xoolee ñun nii dañuy am yoo xam ne dañ koy jomb def ndax ñi tegu suñu ginnaaw suñu njaboot on a des grands enfants on grand-père am ay goro. donc euh, am na yoo xam ne da war a xool sa taxawaay am na yoo xam ne nit war ko nangu parce que on est dans un peuple boo xam ne dañ a éduquer Thione Seck daan wax ni way buy yarewul nekkatul way ay naxaate la mais li ñuy def nii théâtre yi film yi source d'éducation la rek donc dañu war a yar askan bi mais waruñu jël loo xam ni day yàq da leen di da leen di da leen di da di day yàq image bien dafa leen di day yàq seen doxalin ba nit ñi di ñu jéppee nit ñi dañ ko war a moytu waaw ñu gis la ci biir Karma nga joué fa rôle bu am solo mais am sa benn rôle bu xam ne man daf ma xaw a laal tuuti euh, parce que nga nekk sa jabar ñu ci bari dañuy nekk ak seen jabar bàyyi leen ndax jikko nga nekk ak sa jabar ngeen njaboot nga xam jikkoom dem ba mu am ay tolof tolof nga fekk ko ci biir kaso bi féddali cofeel bi nga am ci moom naka nga dundee rôle boobu. waaw dañ ne sunu mbokk kaso yi bu ñuy mayante dañuy taxaw naan dañ leen naan vous êtes unis pour le meilleur pour le pire nit ki boo ànd ak moom ba nattu dal ko. tolof tolof dal ko danga ko war a soutenir gis nga nit ki yaakaar ngay am ci moom ànd ak moom te ni nga bëgg mu mel du yow yaa koy dogal nit ñi nga bëgg mu mel ni mais suñu borom bu dogalee mu mel neneen da ngay nangu lu suñu borom def ce n'est pas nga bëgg leen ko mel suñu borom mooy sàkk jël nitam def ko mu mel ni ba pare yow nga bëgg mu mel yow ni nga bëgg amul fenn da nga koy fekk ci lu mu nekk soutenir ko ànd ak moom daal ko yërëm ko bëgg ko mu xam ne le soutien est toujours là c' est normal dans un couple on est unis il faut que ñuy bëggante ànd daal di comprendre loolu mooy affaire bi. man loolu ban ban rôle euh, ban séquence nga gën a am retour. Euh, là où je je l'ai en prison boobu ngay wax ni moo fekk ko fa parce que la personne bu nekkee ni dafa war a un soutien indéfectible fekk ci li mu nekk dimbali ko parce que olof nee na euh, yërëm ah non yedd yërëma ko gën foofu mu toll yërëm moo gën suuf ko après bu ñu bisee kër nga doog a waaw. d'accord euh, tey gis nañu euh, sëyu artistes yu bari ñu ngi am ay jafe-jafe euh, sëy yëpp ay am jafe-jafe waaye xëy na dañoo gën a siiw ñu ci bari ñu ngi leen di ŋàññi ñi léeg ñu ne jigéen ñi nanguwuñu ñu say léeg ñu ne góor ñi ñu sëy yan conseil nga leen di jox. góorgóorlu rek xool seen yaay yi fi jaar nos mamans sont les exemples mère yi lu ñu dojul paa yi paa yi dañoo mos a tàng muñ rek te bañ a def adduna bi ni dama war a sëy ndax alal dama war a def nii non lu jubee jeexul euh, jógu fa donc nit ki nañu muñu ren rek te nangoonte comprendre tey communiquer waxtaan boo leen waxtaanee communiquer rek après lu mos a lëndëm dina leer. dëgg la Sénégalais yi dégg naa ñu ne da ngay waaj takk ñaareel. Euh, da nga juum xamoo si dara man ñaar laa yor. Ah, da ñaar la am te am naa ñaar depuis 13 ans. 13 ans donc je parle pas de la première déjà sama doom yi ñu ngi taxaw di ma xaar je suis même grand-père. donc ñett kon ñetteel yi. ma jël am na. ah baal ma pousse waa ji jël waaw ah, du ne lañ dama am fit kay baal ma pousse waa ji jëlu jël <laughs> je vous en prie allez merci infiniment ayca mi ngi noonu mbokk internetu Dakar Buzz Diamant Noir avenir u baba <laughs> tànde fan ngi leen laala maa ngi lay fay ça va ci loo ne maa ngi ça va bien tey tooy nga ah? waaw sax dama ko kii rek tey dama ko dama xëppoon ko ndox rek daw ñëw da ngay foo waaw damay foo ni yow yaa ma gën a xam damay foo sama yaram neexu dama feebar boo wéree nooy mel waaw gis nga dama xaw si buru tey <laughs> ca mi ngi noonu ah, naka nga gisee bésu Marodi bi ñu organisé nga jàkkaarloog ah, askan wi. waaw macha allah ndax bis bi sunu bis la ñun ko moom ku ma xam man xam ma ak Marodi ndax yàgg naa fa tam dafa liggéey tey moom macha allah kontaan nañ bi ñu fekk fi ñëpp dañoo kontaan ah, nekk ay xale di liggéey ak ay xale yan conseil nga leen di jox. waaw liggéey rek góorgóorlu nañu ba fa nekkee yàgg sa góorgóorlu la ñu xamee liggéey rek nañ liggéey rek waaw aduna moom boo fi nekkee waar rek waaw naka nga def ba dugg biir Marodi waaw loolu histoire bu gudd la te yàgg na su ma ko def day xaw de yàgg ndax ay mélodie ba ma fa dugal mooy Malick Fack moo fa dugal mais ba léegi maa fa ma laay liggéey ba tey maa nga fa waaw. nga am fa ay rôle yu nga xamante ni sénégalais yëpp dañ ko bëgg yaa ngi am ay retour bu baax. waaw waaw waaw xam nga rek mooy li ma la wax sànq rek liggéey rek liggéey rek su la joxee liggéey def ci fulla ak fayda def ci yomb waaw loolu la. waaw ah, tey nga nekk yaayu senegal ñu bari bëgg la ana baaba. baaba mi ngi fi. avenir bi nu mu mujjee. mu ngi mi ngi ñëw mi ngi ñëw bu ñëwee bi yoon dina garaaw de <laughs> yaayu Sénégal artistes yu bari am problème ndax euh, baaraamu tuuma bi ñu leen di joxoñ euh, ci wàllum sëy yi ban conseil ngay jox xale waaw man nee naa leen rek xoolal xam nga lu ñu def fu lay séntu di gaal xoj bu ca lekk waaw ndax ñi baax ba léegi ñu baax ñi sëy ba léegi ñu ngi sëy ñi liggéey ba léegi ñu ngi liggéey waaw nit ña kenn moomu leen bu ñu bëggee kenn mu leen téyee wax waaw mais yow nekk ci rek yàgg-yàgg dëgg dëgg mooy ñëkk te mooy mujj waaw an sama nijaay nekk fi dafa dem France new yaa dem France. waaw waaw dafa dem France. ak toppatoo. waaw bu baax. merci. ok merci.